aonge billahi cheytaan rajim bismillahi rahmani rahim ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi mbokk auditeurs yi déglu Safina ci point 2 du seetaan ci youtube bi macha allah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen uh, wàccee seen wàcc wàccuwaay di nuyu jiital nuyoo bi nag uh, kilifa kër gi di Cheikh Hamidou Bane macha allah mu yóbbaale ñu auditeurs yëpp ku ci mel ne Baba Warga woon maire Ndiouf ak ñoom uh, El Hadj Malick Guèye ak képp koo xamante ne na yaa ngi safoo Safina ci 98 point 2 ñu yi tey suñu émission environnement ñu xuus nag ci tey ci environnement psychothérapeute boo xamante ne tout ce qui est euh, psychologie euh, ak euh, maladies mentaux yi malade la les maladies les malades mentaux dinañu xuus ci univers boobu noonu nag yàlla dogal ñu am ay yoo xamante ne ñu gën a xarañ ci mbàllu mbir mi ñun moom ay profane nañ ci dinañ ci jàngee yéen auditeurs yi di ngeen ci jàngee ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yi dinañ ci jàngee ñu am privilège ak honneur dalal fi ki nga xamante ne tey mooy Hadja Bint Thiam di présidente association bi ñu tuddee Wasor euh, di association boo xamante ne dañ ko teg ngir xeex lépp loo xamante ne dafay jëm ci atte ñàkkal wala tuutal wala doyadal ñi nga xamante ne yàlla dogal nañu am problème mu xel wala feebaru xel ci loolu laataa ñuy dugg ci waxtaan bi ñu dox suñu naataango bi wala suñu euh, invité bi di Binta mu nuyu mbokk auditeurs yi bismillah Binta asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu uh, maa leen di nuyu di leen sant ku nekk ci turam ak santam um, di wax ni plaisir la pour mhm. nekk fii nii parce que bu ñu wax waxu santé mentale ñun ñëpp dañuy am uh, dafa nekk loo xam te ne foog ñu def ko suñu aajo ñu waxtaan ci ndaxte lu am solo la. Mhm. ndaxte lu am solo la ni ko Hadja Binta waxee euh, bala ñuy dugg ci santé mentale mën nañu xam kan moy Hadja Binta. Ah, man Binta Thiam la damay jàngale psychologie ci université Nottingham Trent bu Angleterre. Mhm. et euh, man maay damay def aussi groupe thérapie et man maay présidente Wasor mhm. comme ni ko waxee. nga xamante ne duñuy yiiteel ak li ñuy yëkkati rek mooy euh, pour ñuy waxtaan waxtaan yu mel ni comme ça nit ñi gën a xam ndax ñu bëri dañuy yaakaar ni que euh, affaire santé mentale dafa nekk loo xamante ne nit ki dafa tàggoo ak sagoom mhm. fekk euh, am na ay nuance yu bëri yu ndaw ndaw ci biir. macha allah nuance yooyu incha allahu taala daan ci dikk euh, Khadja Binta wax ñu ci foncé au fond bu ko defee man ak yéen ñi nga xamante ne yàlla dogal na suñu xam-xam màccul ci mbir moom ñu mën cee jàngee mën cee xam euh, yaa ngi koy wax léegi léegi sa biir introduction am na différence entre li nga xamante mooy santé mentale ak maladie mentale lan mooy maladie mentale lan mooy santé mentale lan mooy seen différence. ok euh, affaire bi ñett la santé mentale maladie mentale et trouble mental santé mentale moi, santé en général une mhm. différence entre santé mentale et santé physique moi mhm. euh, euh, moi bien-être en général mhm. bu fekkee dafa positif wala mu négatif ñëpp ko am dafa mel ni comme sant rek. Mhm. ñëpp ko am bu tey nga socc après bu suba doo socc noonu lay demee. maladi mentale dafa nekk jàngoro boo xamante ne daf lay affecté ni nga xamante ne noonu ngay doxalee ak sa waa ci contexte social bi contexte professionnel beeg affaire yooyu mais ba tey. sévère ou sévère boo xamante arrêter ce fonctionnement Pour arrêter ce fonctionnement il faut que nek trouble mental nga xamante dafay faut nek boo xamante ni il faut am médical intervention mhm. ba ko comparé à maladie mentale gis thérapeute comme mun euh, psychologue mais sinon trouble mental euh, donc sur euh, mon la qui est le processus mhm. la santé mentale nga dem ci la maladie mentale nga doog yegg ci trouble mental bi ah. donc trouble mental bobu moy waral peut-être nit ki am yittewoo ki nga xam te un psychologue un psychiatre des trucs de ce genre pour que mu mën a ko ci wàllu non waaw waaw psychiatre moy numéro un bi boo demee ba trouble mental et puis en général psychiatre dañuy liggéey ak ñi nga xamante ñom lañuy la psychologue parce que psychiatrie yi aspect médical bi rek lañuy lañuy bu ñuy faj aspect médical bi lañuy ñuy faj en général amna na psychiatrie yo xamante nak dañuy def thérapie en même temps mais sinon dañ koy boole ak parce que psychologie ñom ñoy waxtaan ak nit ki pour xol fal comportement bi nek xalaat bi na la demee affaire pour ñu jappalé len ñu changer lolu noonu ñu nu ñuy comporter aspect social mais surtout la ñuy qui a jàppale qui aspect comportement bi xalaat bi ak affaire non, ok balaa ñuy dugg ci mbiru euh, kan mooy psychologue lan mooy psychologie ba pare. waaw <laughs> question bu rëy magistral tout <laughs> question bu rëy psychologie étymologie bi mooy l'étude du. Ehm, bugguma wax cerveau ba study of the mind and behavior mhm. mooy jàng xel nit ki mhm. ak comportement psychologie dafa yaatu am na façon bu nekk ci biir am na clinique mooy ñi nga xamante ne bu ñu defee seen ehm, masters ba pare dañuy dem jàng ji nekk bu nekk clinicien boobu xawma euh, système éducatif sénégalais, mais mhm. en Angleterre da a des masters après nga def am expérience en tant quassistante psychologue et après ngay doog dem clinical training parce que loolu de mel ni booy def training pour que médecin spécifique ndax expertise bi daf kii côté ah, c'est académique comme eh, de côté bi nga xamante mom laay def nga xamante de def ay recherche et puis ci bi recherche yooyu noonu tamit dafa dafa am façon yu bëri am na ñoo ci développement bi la développement humain bi avant muy juddu ak bu mu juddoo bu amee un an deux ans nous nous comporté wee mais keroog et puis am na ñoo xam te ci psychologie éducation la ñu euh, pour ñi nga xam te ne dañu ci biir école bi ndax la progresser motivation à affaire yooyu noonu yëpp ci la bokk am na xam te social psychologie psychologie sociale la ñuy def et ce qui veut dire que dañuy xool ndax la comporté en tant que euh, collectif comportement yi nga xam moo nekk foofu noonu euh, am na hamster xam la mais mhm. comme neuroscientist yeeg so te mais branche mais mhm. lay def mooy nu mooy individuel au groupe. ok euh, dans le cadre général kan psychologue et il faut quoi pour être un psychologue. Euh, psychologie profession boo xamante ne protégé au Sénégal Connais comme mën na woowee psychologue psychologue waaw alors du coup mais pour ñi nga xamantane ñom ñoom ñoo et ñom ñoci dox xam nañu ni que pour nga nek psychologue il faut nga top yenn éthique numéro un mooy nga am expertise ci li ngay wax ak li ngay def. il faut des années d'études voilà. il faut des années il faut des années parce qu'il faut nga def euh, en Angleterre par exemple dañuy def licence licence bi taxul nga nekk psychologue après nga def masters masters bi faut des faut des tamit ci ban branche ngay dem bu tout mu nga pas pour bopp non non et après le nga def doctorat encore dafa dafa dafa ça prend des années comme chez les médecins ça prend au moins sept ans ou dix ans pour nga nekk expert pour nga nekk psychologue en fait ci seen domaine dans le cadre euh, santé mentale wala trouble mental da ngeen di soxla euh, li nga xamante ne moom mooy psychologie da ngeen di soxla psychiatrie y a y a une différence lan mooy seen différence. psychiatrie psychiatre bi c'est un médecin. ok médecin bu spécialisé wu. Mhm. en euh, en psychiatrie la. différence bi mooy psychiatre bi moom moo mën a joxe moo mën a poser diagnose daal ne def lii moo la dal moom mooy def diagnostic bi. waaw moo def diagnostic bi. psychiatre moo bind ordonnance parce que moom mooy médecin bi et psychiatre bi mooy comme ni ñu defee sànq bi ñu wonee progression bi ñu def moom mooy toppatoo ñi nga xamante ne ñoo ngi ci ay crise yu sévère. Mhm. loolu loolu la ñu soxla alors que psychologue mun nga commencer ci bu gën a ndaw bi mooy santé mentale bi mun na nekk foo xamante ne bu fekkee da ngay def par exemple psychothérapie soxlawul nga am problème en fait. Mm -hmm. Euh, boo xoolee mooy ñi def coaching ak euh, seen affaire développement yooyu noonu. yooyu yëpp psychologie la jogé alors dafa ñoom coach amna na ye dafay counseling lañ koy woowee foog naa conseil en français. Mhm. alors du coup da ngay gis ni que mun nga dem gis ko xam te daf lay jàppale nga développer sa carrière et puis euh, am na ñoo xam te da ngay ñëw pour rek nga nek sa bop affaire nonou et euh, pour ñun nous autres c'est obligatoire parce que di nga xam tane mom nga gis nga koy dégg affaire nonou noonu tu es obligé nga dem nga yóbbu ko feneen euh, parce que sinon daf lay perturber yow sa bopp <laughs> euh, et aussi ñi nga xam tane ñoy jang par exemple dañu am lu ñuy woowee supervision genre intervention yu sew sewaan yooyu noonu rek pour daal len woon parce que il faut nga xam sa bop pour nga mën jàppale doom adama ok pour nga mën a doom adama ci sen jargon am na psychothérapie wala ñu ne un psychothérapeute kooku tamit lan mooy euh, kiyam. Ah, psycho psychothérapeute ñoom euh, dañuy topp benn branche bi ñu woowee psychodynamique ou psychoanalysis ñoom euh, seen liggéey mooy pour nga comprendre yenn affaire yi nga xamante ne moom moo la dal bi nga nekkee xale soit bu conscient we wala bu inconscient we ba nga xam te dina jàppale yow nga nekk euh, nit bi nga mën a nekk sa potentiel nga àgg foofu noonu yenn difficulté yi bu fekkee. donc dimbali la nga génn ci yenn blocage voilà voilà daf lay dimbali en fait yow yaa génnee sa bopp ci blocage bi mais moom moo am expertise ba nga xam te ok moom mooy xam les voies pour te faire parler mais c'est pas lui qui parle. voilà pour te faire parler et te faire réaliser ni que yow sa blocage fii la. parce que yow yaa ci woon génnee sa bopp. Mhm. macha allah mu doon lu am solo euh, univers euh, médical boo xamante ne macha allah euh, xuus ci xam ci dina waral mu dimbale ñu bari. parce que gis nañu benn phénomène boo xamante ne mi ngi ngi Sénégal gaa on a am nañu hôpital bu mag boo xam ne hôpital raffinerie de Mbao fële pour les personnes yi nga xamante ne déficients mentaux ñoo xamante ne dañoo am problème mu xel ak ñoom seen di leen ci dimbale yéen de votre côté tamit ngeen am nga taxawal. ben structure boo xamante wala benn association boo xamante ne dafay dimbale ñi nga xamante ne ñoo am des troubles mentaux ñu dimbali leen pour ñu mën a génn ci situation boobu ñu nekk euh, ci loolu su ma la doon wax nga defal ñu peut-être benn genèse wala benn genre bilan ci situation euh, bi nga xamante ne les malades mentaux ñu ngi koy dund Sénégal lan nga ñuy wax bëri nañu xamuñu lu leen dal amul professionnel yu bëri yi nga xamante ne mën nañ leen jàppale ñu reconnaître signe yi balaa ñu gën a aggravé wu. lan moo la motive en tant que Binta euh, pour euh, évoluer ci milieu bi taxawal association boobu nga xamante ne pour dimbali les malades mentaux lan moo la motive c'est déclic bi fan la jógee. waaw sama passion la numéro un psychologie. Mm-hmm. et dafa amoon benn euh, événement xaw ma ndax yéen a koy fàttali ou pas ah, mooy waajooju nga xam te dafa reyoon doomam mi rey boppam ba pay bàyyi lettre jabar voilà le mhm, médecin là mhm. et bi ma gisee yenn réaction yi en ligne ci la je me suis rendu compte ni que dañuy utiliser benn langage boo xamante ne c'est vraiment pas approprié et aussi dafay yokk stigma bi nga xam te moom la ñuy joxe nit ñi nga xam dafa feebar parce que ki nga xam te dafa dem ba def loolu noonu euh, am na lu tax parce que comportement bu nekk a une explication mhm. euh, soxlawul mu nek noir ou blanc mhm. man euh, ouais c'est humain man man dama def euh, psychologie légale la def forensic psychology mooy dañuy toppatoo ñi nga xamante ne def crime ak victime ou tamit alors du coup, bu may genre affaire non, noonu maa ngi gis rien, rien, et puis tu lettre bi moo ngi bind du ñu toog fii di wax mun nañ assistance et tout ça mais mhm. réaction yi nit ñi di ko est narcissiste et tout ça là. voilà mhm. il y a eu beaucoup de de voilà voilà voilà mhm. la je me suis rendu compte que les gens ils se rendent pas compte ni que la maladie mentale qu'est-ce, quest quest qu'est-ce, qu'est-ce, tax nga violent il faut moi ben, un benn facteur boo xam médier entre maladie bi comportement bi et en général moi ay drogue là alcool ou bien moi am ben genre abus pour xam te qui nit ki mu ngi koy dund affaire yooyu noonu mu andi ko frustration non non abus mon anec psychologique mon anec physique mon anec moral mon anec mental. et émotionnel aussi. Okay.

bu ko waxee ci biti nit ñi dañ koy dafa am stéréotype stéréotype boo xam boo xam te moo ñëw ak loolu alors du coup euh, ma daane ok nañu def benn benn questionnaire bu ndaw ñu seet fa la xam-xam bi toll mhm. et puis bu ñu defee questionnaire bi mu wane ni que Sénégal ñoom pour ñoom lépp euh, dépression la dépression la ñuy gën a la ñu gën a xam et puis euh, am na yenn feebar yoo xamante ne dinañ ko tudd de temps en temps comme schizophrénie mais tu comprends d'une coup en fait. Okay. Et euh, pour moi, ça c'est dangereux parce que vous faites l'organisation de, de la santé, ou, le mondial de la santé, que ben ci ñent ci ñun ku nekk yaa ngi am lo xam yaa am feebar bi. Mhm. am ben feebar ci yow mooy ni que ñet ñi <laughs> wala ñu ñent ñep mhm. war nañu mëna xam bu kii dara bu ko dalee ndax lañ koy mën apporter soutien. Mhm. mais bu fekkente ne ñu ngi koy ragal déjà wala ñuy xaar euh, benn comportement boo xamante c'est vraiment extrême ci moom. Mhm. duñ ko mën jàppale. dëgg la loolu moo tax ma ne commencé ñu commencé di euh, di waxtaan ndax nga mën jàppale doomu aadama bu nekk sa famille wala bu nekk sa xarit. wala mhm. boo ko déggee rek ndax nga koy mën jàppale d'une manière boo xamante ne c'est un peu plus humain. parce que nit ku feebar ki tamit moom ci boppam ci lu muy jaar neexul. waaw ci li muy jaar neexul mbokk auditeurs yi di ñu suivre ci 98 point 2 du ñu seetaan ci YouTube bi Safina TV macha allah ñu dalal fi tey kii di Hadja Binta Thiam di ab euh, psychologue mu leer baña a jox ko benen profession bu moomul psychologue mu accompagné d'une jeune fille étudiante mom aussi tamit euh, Aïcha Sall machallah ñu accompagné ko ci plateau bi ñu wara waxtane li nga xamantene moy santé mentale trouble mental ak lepp lo xamantene ne na euh, ci bor bobu Hadja Binte nga defal ñu benn euh, situation par rapport ak Sénégal fu mbir mi tollu ñu gis ni c'est un cas avancé té mu wara nek lo xamantene war nañ ci jokk war nañ ci wax war nañ ci dox pour que ñu am des pistes wala des débuts de de solutions ci association stratégie de bëgg pour que pour venir à bout de cette euh, situation. déjà pour commencer la ligne de mois nous commencer joxe information information en ligne alors du coup à ah, ñi réagir nous vraiment d'une manière très positive ni ni des unions comme euh, pour une consultation et. Euh, daaw après le mois de juin 2023 jafe-jafe yi amoon Sénégal nu métti woon trop noonu ñu daal di ay groupe de thérapie mhm. parce que dama bokk ci ben société internationale groupe analysté léegi sama collègue yooyu nous nous nous nous ñu dajaloo après ñu leen di def ay intervention en ligne am na ñoo xam un groupe nous ñoo xam te dañ individuel c'est bien beau pour ñu wax nit ñi naka ngay comporter bu fekkee que les mots bu fekkee ne yaa ngi sentir nii defal nii defal na le bu fekkente ne sa mbokk lii moo ko dal defal nii defal na lee mais amuñu ay psychologue au Sénégal. alors amuñu ay psychologue wala bari wuñu am nañu mais bëri lewuñu mais boo ko xoolee comparé ak. ak yéen en Angleterre y autres. même dans le cadre général même dans le cadre général mon nañu wax ne amuñu parce que c'est très rare nga doo leen mën au téléphone wala nga mon def affaire affaires yi ak ñoom ba am nañu am nañu brillant ah. Mhm. ñoom ñu que fini. mais c'est le nombre qui est infini. voilà de ndaw ba nga xamante ne dafa dafa dafa problème il naa zéro que pour mhm. tous les 100 000 euh, personnes dans la population là presque tout dara alors du coup lan la ñuy def mooy ni que dañuy dem ci université yi di jéem a ubbi foofu noonu ay euh, cellules comme ça ñun dañuy jox dañ leen di def ay atelier pour woon leen naka lañ mën a nekkee ay champion de la santé mentale et tout ça ñoo ngi nekk di wax en ce moment ak ben charité en Angleterre boo xam ne moo ngi tudd Care If pour ñom ñu mëna a ñëw joxe training bi et aussi dañu bëgg a ubbi ben collège bo xam te dinañu train pas des psychologues mais des psychothérapeutes. comme ça. pour assister les voilà ah, parce que ñu et aussi ñu des groupes analyse aussi parce que groupe analyse bu ci une session de 50 minutes bi mu nga dajalé nit ñu bëri. Mhm. ñom ku nekk mo gën nga def one to one. Euh, face à face ak benn individuel mhm. affaire yi nga euh, vidéo pour les jeunes parce que faut que nous commencer à sensibiliser vraiment tôt parce que et puis dans les petits euh, domaine d'un écoliers de parce que ça mhm. manque vraiment et euh, ñun l'école de directrice de l'école de pour dans ce cadre dañuy jot association sollicitation fu nekk mhm. mais euh, konk dañuy ndaw ñoo ngi doog a commencé mhm. dañuy xaar bu ñu gën a ubbeeku comme ça ñu gën a mën def yenn affaire yu bëri mais pour l'instant suñu focus bi ci euh, les champions yi ma la wax ni mhm. en santé mentale lay nekk et après ñoom ñoo nekk ay relais communautaire comme ça ñu ñu nekk ñi nekk dans les zones rurales ñu mën jot ci mbir mi waxtaan ak ñoom et aussi les bëgg nañu def ay enregistrement pour ñu def ko dans les langues différentes nationales différentes parce que psychologie en général que ce soit fille au Sénégal wala en Angleterre ou en France dafa wala psychothérapie dafa nekk mbir bo xamante ne élite ñoo ci jot te bëgguma élite rek jot ci mhm. ñëpp faaw ñu jot ci et beneen affaire bi nga xam mom lañ def mooy day nekk en partnership ak euh, international international students of Islamic psychology um, international pour euh, société internationale pour mhm. les euh, pour les étudiants de la euh, de la psychologie islamique parce que que psychologie islamique ça existe aussi hein léegi dañu bëgg def ben partnership ñu ubbi fi ben chapitre au Sénégal moom lañu nekk di setup fu mu toll et après loolu noonu dañ leen di train imam li ñu jikko commencer nga xam te dinañ leen def ben training renforcement de capacité voilà mm-hmm. parce que ñom déjà am nañu yenn base yi ci mm-hmm. islam so la ben année rek comme avec les euh, les les euh, am na médecins yi bu ñu def euh, euh psychologie médico-légale mm-hmm. dañu ñëw très def ben masters après masters bi dali loolu la ñuy waxee stage one. et après dañuy def deux ans. de pratique. De pratique. Mhm. Après le stage, voilà, nous avons la pratique. Voilà. Ok. Les gens qui ont fait un imam est fini. Comme ça, nous avons nous, nous véhiculer le message. Nous avons appeler les populations dans ce sens. Voilà. Parce que nous avons vu le Sénégal. Nous avons vu le Gobop. C'est ça. Voilà. Au mhm. euh, Sénégal, d'habitude, nous avons une culture euh, psychologique, psychothérapie. Ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ça. Et d'après la présentation que nga def kéro dimanche lors de l'atelier nous gis ni tout un chacun de nous dafa soxla oreille attentive mhm. dafay soxla écoute mhm. ci lolu yeen ban stratégie ngeen wara a jël pour peut-être convaincre nit ñi ne du yeufu tubaab mais yeufu nit la mhm moo tax ñu doon joxe yenn information yi def ay campagne yu euh, en ligne di joxe yenn information yi di ci waxtaan ouvertement invité l'Indien journaliste journalistes yi waxtaan ak def suñu conférence bi ñu defoon aussi c'était pendant tout le week-end et puis euh, le le samedi aussi dañu invité one borom xam-xam yi nga xamante ne ci lébu yi et puis il y avait docteur Bodoussou aussi. Mm-hmm.

suñu collègue bi au Rwanda dafa doon wax affaire génocide bi di wax affaire silence nu mu mm-hmm. amee doole mm-hmm. Rwanda et naka lañ koy gisee ci seen proverbe yeeg affaire yooyu noonu après mu wax naka la ñu ñoom ñu def ay groupe de thérapie boo xam te ne utu yi ah artutsi dañuy ñëw ensemble mm-hmm. ku nekk di wax narrative am de son point point de vue et da ngay gis

parce que ñu tam dañu am suñu ay réalité nous xam dañ koy tenir en compte. ci réalité yooyu laa bëggoon ñu wàcc parce que euh, peut-être euh, euh, li nga xamante le, nous les occidentaux ñoom ñu koy dund wala côté psychologie psychiatrie et thérapie c'est différent de ñun réalités. réalité ñun suñuy réalité en tant qu'Africains ou en tant que sénégalais nous avons peut-être ce qu'on dit les nous ñun ce qu'on dit ay nous dañuy am li nga ce qu'on dit les xamb de de de de de l'autre côté. dans le cadre de vos investigations est-ce que yéen a ngi koy jël en compte. man donc thèse bi c'est sur le ndëpp. ok et euh, mun naa la wax que même le paradigme européen le ndëpp peut s'expliquer. Hmm. parce que déjà le buñ koy def c'est un truc de communauté. Mhm. et euh, on sait qu'en psychologie nit mënul ou wala wér té amul support social. tout à fait. et aussi xamnañu aussi tay en psychologie ni que am yenn thérapie yo xamante lampe lañu jël ñu def ko ba mu fort mu am effet soleil bi ci doomu adama bi amna dañuy def utiliser lolu comme thérapie pour jàppale ñi nga xamante surtout ñi nga xam dañu am dépression yu sévère yi. xam nañu aussi ni que en psychologie tay jii à recherche une def ni que djembe vraiment précisément djembe mhm. ak ah, sabar sabar bi ah, ñuy tëgg sabar yi ñuy sévérité mhm. mhm. sévérité symptôme anxiété social anxiété ak dépression Madame, ça fait du bien à, la personne concernée à la personne concernée est-ce que xam aussi ni que le sport da ngay dégg loolu dafa lay jàpp pour sa bien-être alors bu ñuy def ndëpp bi fecc bi ba ngay ñaq affaire yooyu noonu yëpp buñ ko xoolee ci angle boobu noonu alors on sait que bu ñu dajalee recherche yu ñu am yëpp ak kii dinañ xam ne que dafay dina am effet boo xam te ne dafay positif pour nit ñi am na benn étude bu ma lire il y a pas longtemps buy wane ni que gars yi nga xam dañu doon dajaloo di tëgg sabar jëmbe en groupe sen euh, kii dafa wàññeeku ba nga xamante ne seen euh, symptôme dépression ya anxiété sociale yi dafa wàññeeku ba nga xamante ne après ñu def étude de suivi après trois mois moo ngi wàññeeku ba tey. ok donc pour ça il faut il faut il faut ay études yoo xamante ne yu poussé la pour que nga mën a euh, au finish am ci diagnostic boo xamante ne mën nga ci sukkandiku pour aller de l'avant. c'est ça loolu laa def nii. Mhm. et pour ñu def loolu il faut qu'on réalise que ñun. am nañ xam-xam fii. am nañ xam-xam am nañ xam-xam bu bëri suñu xam-xam benn la ak xam-xam tubaab yi wala ñun suñu xam-xam beneen ja beneen beneen angle la. ute na ute na xam-xam xam-xam la parce que réalité yi nekkul benn. waaw waaw man li may def dañ koy woowee décolonisation. ok te décolonisation amul benn yoon bi nga xam te moom nga koy defee mu nga ko defee ni nga ko mën ni nga xam te noonu comment tu l'entends daal. et man sama bos mooy damay amplifier xam-xamu le yi parce que lébu yi sen xam-xam mën nañ ko tracer ba Égypte et pourtant xam nañu ni que premier expériment en psychologie pour euh, comportement d'homme Adam, c'était fait en Égypte après ba égyptiens yi pare tu you know empire romain bi ñëw tam ñu liggéey ci kaw lu ñu fekk Égypte xam-xam boobu noonu ñu daal développer seen psychologie après il y a eu les musulmans tant au Bagdad mhm. ñu ñëw du liggéey ci kaw li nga xamante ne moom la romain yi def tam ñu am psychologie islamique bi nga xamante moom la am ba tey ci ni donc à la base on peut dire que c'est africain ok ba ba ba renaissance bi

ça peut nous mener de l'avant. waaw macha allah auditeurs yi déglu ci Safina 98.2 de 2 dañu YouTube bi Nous allah ñu ngi studio El Hadj Omar ci suñu émission Safi environnement macha allah tey nañu dugg environnement psychologique environnement psychothérapie tey moom dañoo dañoo dellu classe de jàngi Expérience <laughs> expert yaa ngi nii toog dañ siy jariñu incha taala ci loolu euh, ñu gis euh, environnement sénégalais le euh, côté malade mentaux yi on un diagnostic par rapport au traitement bi nga peut-être euh, maintenant euh, le média dafa développer. chacun a sa caméra chacun a son portrait di di def wala di di pour le social peut-être ça on prend des images des films ay nit pour que peut-être venir à bout de la situation pour les leen mais de l'autre côté mon na un frein pour leur euh, santé psychologique loolu bonne approche nga ci am. moi je suis contre parce que nit ki nga xam te dafa faible surtout pour euh, les maladie mentale bo xamantene xam nañu ki dafa faible dans la loi internationale vous yi nga xam l'Union Européenne ONU loi. Union africaine bi ak loi yi fii au Sénégal ci boppam dañu am ay provision yoo xamante ne ñoo leen di protéger am nañu droit joxe consentement buñ ko mënul seen famille joxe ko mhm. am nañu droit privé dañu am euh, une vie privée comme ñun ñëpp mhm. am nañu droit bu surtout bu fekkente ne dama koy gis dans les réseaux sociaux et man daf may ça me met hors de moi parce que surtout jigéen yi nga xam te dañ leen di filmer parce que jigéen bi da boo nekkee jigéen tu es vulnérable mm-hmm. nga boole ci nga am beneen vulnérabilité mooy da nga am problème euh, xel mm-hmm. tu es vulnérable deux fois nga boole ci amuloo kër tu es euh, sans abri vulnérable trois fois mm-hmm. nit ñi ñëw di filmer di photo fi nga nekk comme ni ma ko waxee psychologue su médico euh, médico légal la mooy ni ko xam ne yu nekk ñi nga xam ne c'est des déviants sexuels. Mm-hmm. C'est des violeurs. Mhm. Elles sont exposées. Elles sont exposées. On leur donne des opportunités. Mhm. De visionner et de savoir les lieux exacts. Exact. Pour nous, pour nous satisfaire, cette déviance. Même vous faites qu'une goule, tamit. Les deux cas, mon âme. Yep, d'ailleurs. Sénégal dafa gaaw yërëm nit. waaw mais bu loo yërëm nit yërëm nit nga bëgg ko dimbale ak intention bi nu mu mënti mel mel mel mel mel mel doo xëy nga dem ne ngay dem faj koo xam te dafa am cancer wala dafa am diabète wala dara kon mënuloo ko def ak ki nga xam te dafa am maladie mentale. tout à fait. parce que c'est une maladie. xëy na nit ñi dañ yaakaar duñ ko gis. Mhm. à lay nu kenn du gis cancer à lay nu. ñu mhm. tamit tant que defuñu scan bi. Mhm. boo defoon scan bi tamit nga gis ko ñoom ci ñoom je suis que je suis vraiment contre mon nom d'avoir ça, nous manque au contraire. Mhm. et euh, li gën ci comme ni ma au début ñun psychologue yi dafa am nous am ay charte yoo xamante ne moom la ñuy ben benn bi mooy expertise nga xam li mooy sa expertise fi ngay yem fi ngay dem mhm. bu fekkente yow dëgg-dëgg li ngay gis touché na la comme yeneen psychologue yi nga y a ne dañuy dem jàngi ko nga dañu def dafa am dara lu leen yëngal lu leen touché pour ñu jóg ñu dem jàngi ko la même chose bo demee ba nga xam que yow fi nga tollu ni am nga expérience bi nga xamante mom moom mo moom moo war mun nga def différence entre yenn faible nuance yu sew sewaan yoy nonu té am nga supervision ci gannaaw tamit mhm. nga commencé wax di agir parce que sinon comme suñu vidéo bi bi ñu tegoon ci suñu atelier mhm. ci yoy lay mujj euh, yaa ngi wax ci say propos ni sénégalais naturellement dafa nek nit ko xamante dafa sentimental dafa sensible dafa bari yërmande mais dañoo nekk ci jamono boo xamante est-ce que euh, sentimentalité boobu ñuy wax ak sensibilité boobu ñuy wax tëbul tegu fa à la place du buzz pour bëgg euh, nekk le premier à avoir fait la vidéo wala le premier à avoir donné scoop bi moo waral nit ñi léegi humanité moo amatul ci nit ñi damay wax bés bu nekk ma ne Sénégalais si benn animal la boo xamante ne dafa doy waar bëri na bëri na yërmande mais boo xoolee comportement yi ci réseaux sociaux yi et aussi euh, ci télé yeeg affaire tu vois que ñoom dañu nekk ci seen émotion yi day xaay ba tout le temps tout le temps ndax ndax li ñuy seetaan ak li nga xamante ne mom la ñuy loolu moom la ñuy bëgg di gis yi nga xamante ne ñooy trend affaire non. tu te demandes comment est-ce qu'ils peuvent s'ouvrir euh, survivre en fait mhm. Beug bës tam am na ci et puis loolu moo taxoon ma dajale woon journaliste pour ñu waxtaan ci parce que on sait que c'est pas normal tout à fait c'est pas du tout normal l'ordre du journalisme mm, mm du journalisme il faut que nous waxtan ci suñu ñu ñuy defa ñu guide bi nga di pour l'instant mhm. pour ñu daal les autorités compétentes mhm. parce que euh, amul kenn benn doomu aadama bu am droit jël liberté à doomu à moins que nekk ki nga par la loi may nañ <laughs> par la loi est-ce que euh, en plus euh, de guide bi nga xam proposé pour les autorités Il y stratégie une stratégie. ni bolon ko tëralee dina dimbale même bu phénomène bi euh, arrêté au moins mu am baisse bu baaxa baax parce que maintenant tout le monde est photographe tout le monde est caméraman ba photographe cameraman, côté boobu noonu moom dama koy bàyyi yéen ci médias yi ngeen gérer loolu parce que du kii mais en ce qui concerne affaire santé mentale faut que le gouvernement bi war que ko jël au sérieux Papa, pare ñu xool association yi nga xam te ñoom la ñuy ñoom ñooy créer ñan di créer am expertise bi et aussi même bu que dafa am ay nit yu nekk seen tamit mhm. concrètement comment cela se passe. Okay concrètement comment cela se passe euh, war nañ def études poussées. poussé ñu déllu ci ci univers bi nga santé mentale la euh, association pas mm, ci pour ngeen base reconnaître ngeen peut-être euh, travailler exceller sur nationale et internationale foog naa le fait que moi liggéey ci université bu gëna a mag Angleterre bon gënu mag Angleterre mais suñu département psychologie mo gëna a mag Angleterre kese def nañu international parce que dañuy soutenir ci lu bëri li nga xam te moom la def et aussi ni ma bokké ci groupe Analytical Society International bi tamit ñom tamit ñoo ñu soutenir ci affaire yu bëri yu ñuy def am na ñoo xam te ñoo ngi def ñoo ngi def an groupe analyse de groupe ba tey sen seen eh, analyste bi ken ki mu ngi jóge Ukraine keneen ki mu <laughs> ngi jóge États-Unis ñi ñu ngi jóge Pérou te bëri nañu daal fu nek lay nek so international bi foog naa suñu conférence break déjà on avait eh, ñaata pays d'Afrique Cameroun et mm-hmm. puis il y avait le Bénin il y avait eh, Afrique du Sud Rwanda Sénégal bien sûr mm-hmm. alors du coup yes loolu moo ngi foofu noonu lan la ñu bëgg a def waaye bëgg nañu nekk ci région bu nekk mm-hmm.

échange mus mus munu bañ a nekk échange tout le temps échange là. te munu ma ñëw man comme ni ma ko waxee man sama parcours c'est strictement européen alors du coup munu ma ñëw ah xalaat maa ngi jàng ak lébu yi légui, mais mhm. ba tey maa ngi jàng tu as beaucoup à apprendre mhm. Légui, munu ma jël xam-xam boobu par exemple ma daal di koy dem ma yóbbu ko Ziguinchor fi mhm. sama kii jóge sama famille jóge dem di fa yóbbu non, noonu damay dem nekk seen biir ñu jàngal ma ma wax leen li ma xam ñoom tam ñu wax ma lu ñu xam après ñu xool naka lañ koy liggéeyee pour mu nekk loo xamante ne localement dina marché pour ñun ñëpp. donc à la base fépp foofu ci mënta dem la communication elle est essentielle su ma la déggee. c'est tout c'est voilà. tout est communication <laughs> donc tout est communication tout est communication respect. -hmm. révérence ah man ma xam sama responsabilité ñoom tam ñu xam seen responsabilité. Mhm. ak suñu interconnexion yi ak naka lañ koy boolewee yëpp. Mhm. ñu daal di ñëw ak benn affaire bu boo xamante ne dina marché pour ñun ñëpp. te aussi dina jariñ ñëpp. Ah. waaw ngeen nekk association bu jeune. ba ngeen mm. juddoo yàggul. Mm-hmm. te ku ne xam nañu association pour mu dox il faut que nga am ay partenaires nga am ay sponsors. Mm. nga am ay bailleurs yoo xam ñoo leen di jàppale. Mm. sur ce plan aussi tamit yan stratégie ngeen tëral pour am ñu leen accompagner. Euh, ñoo ngi ut <laughs> du <laughs> comme ni nga ko uh-huh. euh, et jusqu'à présent nit ñi nga xamante ne générosité ñoom ñoo ñu continuer suñu yóbbu ba fi ñu toll nii. Uh-huh. ñu ci sant bu baax comme euh, suñu week-end bi dernier bi nga xamante deux jours de conférence la euh, mu am hôtel Saint-Louis Sun bi nekk Flexifort. Uh-huh. Euh, ils ont été très généreux C'est seen ndax lañu ñu dalalee. tout ça moo abal local bi ngeen def. seen activité voilà voilà euh, ba pare puisque newuma fii seet nañu une euh, restauration bu bar, baax moins cher pour nous, nous nañ voilà voilà mu am aussi euh, Bryston nga pour ils nous ont donné euh, une somme pour nous ça a été très très voilà pour journée et euh, pour l'instant, nous avons demandé aussi à partir des ambassades et aussi pour voir que l'ambassade Rwanda, ils ont été super. ñu ont voulu appeler, mais l'ambassade a bien ouvert, ils ont bien coupé, Mais ils nous ont suivis en ligne. tout de suite après, ils ont eu un feedback et puis nous ont voulu encore l'année prochaine. Alors du coup, vous faites qu'un ñi rek mhm. contacter on est en ligne on est dans les réseaux sociaux et aussi je suis sûre que vous contacter di nga mën partager Si vous contacter Radio Safina 98.2, 98 point 2 numéro Inch'Allah. vous képp ku sponsor bu accompagner parce que comme on dit c'est un métier noble c'est une association noble c'est des idées nobles parce que vous koo xamante peut être déficient mental Vous nga accompagner ko jàppale ko vous ko ñu une bonne communication pour le bonheur de tout le monde koy def population bi yëpp dañoo war a ñëw adhérer à la mm. cause jàppale leen accompagner leen. Mm, mhm. ah. macha allah mbokk auditeurs yi daanaka ñëw nañ suñu cëppaandaw émission tey ñu dalaloon fi Hadja Binta Thiam. di psychologue n'est-ce pas Masha'Allah, nous ñu def euh, les contours de son métier ak euh, ses activités Masha'Allah, nous ñu jàngee ci lu bari ça ne sera pas la dernière fois inchallah elle va revenir davantage et souvent inchallah pour partager avec nous li nga xamante ne dans le cadre de ses activités euh, dans le cadre du milieu des malades mentaux et autres soxna Binta boo des tàggu mbokk auditeurs yi jox leen dig daje ba beneen bonne appréciation de cette émission. Bah, ah, je suis très contente. Merci pour l'opportunité. Et puis, remercier les gens qui ont été dire que je suis moi, français, anglais. Voilà, <laughs> Et que nous avons fait des nids, nous avons fait des nids, nous avons fait des nids. Nous avons fait des nids am patience surtout patience ñu mhm. jàppalante am patience c'est le mot clé dans la vie quelle que soit la situation fi nous mënta nekk ak lu ci ci lu ñu rek taala patience mooy tax ñu am résultat donc la patience dañ koy ñaax suñu bopp di ko ñaax képp koo xamante ne yaa ngi déglu Safina ci 98 ñu remercier suñu cadre suñu monteur pour la caméra de l'autre côté de la baie vitrée ñu remercier Thierno Muntaga pour la technique ak Djibidja Mashaallah, nous sommes nuyu suñu assistant Abdoulaye Bach euh, de l'autre côté lui aussi machallah donc beaucoup d'auditeurs yi ñu dit dig daje ba une émission ci Safina FM 98.2 qui est une émission Safi environnement.